niyatuhu ak yéeneem nga iqtidaan ak roy bokk na ci faratay julli nga yéene roy ci nga bëgg a àndal ngeen julli li ci ëpp na doomu aadama moom lu mu def dana ko yéene waaye dañuy bañ boo taxawalul sa julli bopp ba nekk ci biir gannaaw ba kenn ñëwul julli fi sa wet nga daal di bëgg a jàll ca noonu rek na nga doon julli rek faru yi ànd ak moom naa jékki-jékki woo ci sa yéene ñëkk ji rek ànd ak moom loolu mu mënta am te aajo faaw ci septembre julli nga yéene roy ci kookee mu ànd yow ci julli mu ànd ak moom ci julli kon jàppal ne yéene roy maanaam yéene ànd kenn ci julli ci njëlbeen lay doon kazalika ni al imaamu ilimaan fii xaw fiñ ci julli ragal wa jamxin ak julli boole jumxatin ak julli jumaa mustaxlafin ak ku ñu wutal man nga ne ba tey mustaxlafin ak julli wuutal daa wax ne am na yenn julli yoo xam ne boo ko dee jiite faaw nga bàyyi xel ci jiite bi ngay jiite mooy da nga yéene jiit ka doomu aadama sax yé néewaana mu ànd ak sagoom te def dara te yéenewu ko waaye daal nga teewlu ne yaa ngi jiite ba ci jëkk mooy salaatul xaw fi julli ragal nañ ko jàngee ci risaala ak la koy waral ak nañ koy defee ilimaan ji koy jiite faaw mu teewlu yéene ja ak julli boole bindee boole lu mel ne timis ak gee ci guddi taw julli ko mel noonu ilimaan ji koy jiite faaw dana aajowoo mu teewlu yéene jiit ga ak julli jumaa julli jumaa noonu la ka koy jiite faaw na teewlu yéene jiite ga ak bu fekkee ilimaan dafa am ngànt dal yi dal lay wuutal yow mbaa keneen ngir kooka àggale julli gi kookee nga xam ne mooy wuutu nga njëkkan di jiite faaw na teewlu yéene ji ndax soppiku na bàyyi ko jumaa moom ñëw ci ilimaan chartuha sartub julli al istiqbaalu moo di jublu xibla tuhurul xabasi ak laabu xabas wa satru xawratin ak suturaal xawra wa tuhurul xadasi ak laabu xadas bi zikri ànd ak fàttaliku wal qudrati akuk man te mooy kàttan fii xëyril axiri ci kudul aji mujj ja nee na julli am na ñeenti sart yoo xam ne ñoo koy tax a wér nga xam ne sart yi bokkut ak farata ya ba ci jëkk mooy jublu xibla jublu xibla mooy boo nekkee fa kaaba ga mbaa la ko wër mën a jàkkaarloog jëmm ja da ngay jàkkaarloog jëmm ja bu fekkee nekkoo foofa nag nga seet wet ga nga xam ne fa la kaaba ga féete nga julli jëm foofa benn sart nga ko ba ca topp nag mooy laabu xabas laabu xabas mooy bañ a julliwaale sobe ci sa yére mbaa saw yaram mbaa fa ngay jullee ak sàng awra sàng awra mooy la nga war a sàng ci saw yaram nga sàng ko daañu ko leeral ci kanam tuuti ak laabu xadas laabu xadas nag moom mooy bu la jàpp waree nga jàpp bu la sangu farata waree nga sangu bu fekkee yooyu yaar da nga ca am ngànt nga xam ne sa farata mooy tiim nga daal di tiim li tax mu ne nag bi zikri wal qudrati fii xëyril axir mooy yett yi mu njëkk a wax muy jublu xibla gi ak laabu xabas gi ak sàng awra gi moom balaa nekkub sart nga man ko te fàttewoo ko waaye su fekkee da nga ko tële mu wàcc la soo ko fàttee itam la nga def du ko tee baax mel ne boo julliwaalee sobe ci fàtte ba sëlmal julli nga baax na dañuy sopp rek nga baamu ko ba tey boo fàttee sàng sa awra ci ba ngay julli ba julli ba noppi fàttaliku ko it dañuy sopp rek nga baamu julli ga waaye teewul julli ga baaxoon na jublu xibla itam bu fekkee da ngaa natale woon ne man day nii laa daa xamee xibla nga def ko ba àggal nag ba julli ba noppi door a seetlu ne ah man kat fi ma jëman du foofa ba tey daañu sopp kon nga baamu ca waxtu wa bi nee baamu ca waxtu wa rek mooy julli ga baaxoon na te bu waxtu wa xasee jàll duñu soppati baamu ga waaye dane nag ci kudul aji mujj ji aji mujj ji mooy laabuk xadas laabuk xadas mooy bu waree sangu-sangu maanaam bu waree sangu farata sangu farata bu waree jàpp jàpp bu fekkee tiim mooy farataam mu tiim yooyu moom mënuñoo ñàkk nga fàtte ko ak nga bañ koo fàttee ci yem soo ko fàtte woon ba julli te jàppoo mbaa ba julli te sanguwoo farata mbaa ba julli te tiimoo fekk sa faratay tiim it du tax julli nga baax su fekkee waxtu wi jot na nag ba waxtu wa jeex te amoo loo mën a laabe mooy li ñu mën a laabe muy ndox ak suuf amoo ca lenn lenn fa waxtu wa dale ba fa waxtu wa jeexee kon googu julli wàcc na la ci wax ji gën a wóor te du aajoo nga di ko fay wàcc na la bu wér-wér rek jooju wax moo gën a wóor tafriixu naa siiha banqaasaluk aji fàtte seen waxaa gisin ak aji lot kasirul aji bari la ndegam nee na la sart yi ñeent la waaye yett yi ñoom balaa nekki sart nga boole fàttaliku ak man kon nag mu ne la nag bu yàlla dogalee nga fàtte mbaa nga tëlee nag kon am na ay teqale teqale ay atte atte yu bare bari yu ci aju waaye mën na la koo takkal ci nee mu lay bëgg a waxee wax naa ko léegi nag moom mu daal di koy baamu ne yoon yi daañ danañu baamu nadd ban ci sopp bi waqatin ci waxtu su fekkee dafa fàtte woon a jublu xibla mbaa da koo tële woon mbaa dafa fàtte woon a dindi sobe si mbaa da koo tële woon mbaa dafa fàtte woon a sàng awra mbaa da ko tële woon gannaaw ba su fekkee ne tële ga dañ na mbaa mu fàttaliku te waxtu wa jeexut danañ sopp kon mu baa mu julli ga ni ma ko waxee woon léegi waaye teewu na julli gu njëkk ga baaxoon na kal xataa ni ki mooy ga fii xiblatin ci xibla julli ba sëlmal door a fàttaliku ne moom kat fa mu jëmoon du xibla it ni ma ko waxee woon léegi bu fekkee moom daa amoon nu mu daan tegtaloo ci xibla naka mu def noonu ba àggal ndikki yow moom kat fa mu jëmoon du xibla te ba mu jullee ba noppi la ko xam koy dañuy sopp rek mu baamu ci waxtu wa nde sax bu fekkoon ne moom xamutoon tegtalu xibla gisul kenn ku ko wan gisul jàkka ju mën a julli jëm mu seet rek fa ko neex mu julli jëm fa kooku jaanam wàcc na du aajowo muy baamu waaye nag ki nga xam ne moom amoon na ay tegtal yu muy tegtaloo sukkandiku ci nag ba ne fee la ba mu jullee ba noppi nekkiti yoo du foofu nag waaw kay kooku la ñuy sàkku ci moom mu baamu ci waxtu wa waaye ka xamutoon fu muy jëm moom day tànn fu ko neex rek jëm te bu xasee tànn julli fa ko neex jëm bu xasee tànn fa ko neex julli jëm foofa gannaaw ba kenn du sàkku ci moom muy baamu ci benn yoon déedéet mu des nag ki nga xam day julli ba ci biir mu fàttaliku ne moom kat jëmul xibla fii mu nekk kooku dañuy seet bu fekkee ne daa gumba dañ koy wax ne ko yow jublu xibla rek waaye la nga defoon baax na maanaam jublu xibla ndànk rek waaye la nga defoon baax na bu dee koo xam ne itam tuuti la mooy woon xibla maanaam du gumba sax waaye la mooy bëriwut ba tey kooku day waña bi ko ndànk rek jëm xibla mu des nag ki nga xam ne njàccaar la maanaam gumbawut te la mooy xibla daa bari te yëg na ko ci biir julli gi kooku moom day dagg julli ga tàmbaliwaat ko léegi mu ca teg nag ne laa xaj si haa du caa génnu lott ca jublu xibla ga awil xitaa wala lott ca muuraay ga muuraay ga mooy sàng awra ga daa wax ne koo xam ne la ko teye jublu xibla mooy da koo mënut kon gannaaw ba su ko mënee te waxtu wa jeexutit duñu sàkku ci moom mu baamu ba tey mu ne ka nga xam ne daa mëntoon a sàng awraam mooy fàttiwu ko waaye daa amutoon lu mu ko sàngee gannaaw ba su amee lu mu ko sàngee itam du tax ñu sopp mu baamu ci waxtu wa waaye wax ji gën a wër nag mooy ki nga xam ne moom daa amutoon lu mu sàngi awraam gannaaw ba su ko amee daañu sopp mu sàng awraam te baamu ci waxtu wa ki nga xam ne mu tële ci xibla nag moom da nga koy teqali ni ma ko waxee woon léegi rek bu fekkee ne daal moom daa xamutoon fu muy jëm gisul kenn koo ko wan yoon da koy may mu tànn fu ko neex rek julli jëm bu xasee tànn nag julli fu ko neex jëm nag gannaaw ba moom kenn du ko wax mu baamu ci waxtu wa waaye nag bu fekkee ne amoon na ay tegtal yu mu daan xàmmee xibla mu sukkandiku ca ba ne fay xibla mu julli ba àggal na ndikki téyoo foofa du xibla waaw kooku moom daañu tàmmu bi mu xasee xàmmee xibla ci gannaaw ba mu baamuwaat julli ga wama xadaa wajjal xorrati lu dul xar kanamu gor su jigéen wa kafal xorrati ak tengal gor su jigéen yejj bu dana war sa turuxoo suturaalam nga kama fil awrati naka mu bokkee ci awra ja ndegam sàng awra daa bokk ci sarti wérug julli war na laa leeralal lan mooy awray góor ak lan mooy awray jigéen awray góor moom moo tàmbalee jumbax rek ba ci bëti woom bu xasee sàng diggante boobu rek awraam sàngu na jigéen nag moom yooyu jamono dafa amoon gor am jébéer muy jàmbu jigéen gor moom maanaam gor su jigéen yaramam yépp awra la bu dee julli da ko war a sàng ba mu des xar kanam ba ak téng ya yooyu yaar rek moo ci nekkul awra lu bokkut ak moom war na koo sàng te sàngee ko lu talatal lu wóor a wóor la muy sol daa war a jot ba buubu ci kaw tànk ya buubu ci kaw ndëggu ya du aajo woon nag muy sàng kanam nga wala muy sàng téng yi ne kiy sol ay gaa mbaa di ca muur dara ci ay téngam loolu jaru ko bu dee jaam bu jigéen muy jébér na ci yooyu jamono moo góor rek ñoo tolloo awra maanaam moom bu dee jaam bu jigéen da tàmbalee jumbaxam ba ci bëti boobu ba tey moo di awraam waaye loolu nag bañ daan teqale gor ak jaam la woon léegi amatul teqale gor ak jaam ñëpp rek laakin waaye tox yi du dana baamu moom jigéen ci waxtu yi waxtu wa al muqarrar wa di wuñu saxal la daa kashfin fa ak wuññ li sabadin ñel ak dënn aw shaharin wala kawar aw tarafin wala cat cat mooy cati loxo mbaa cati tànk nee na gor su jigéen buñ nee ko sa yaram yépp awra la boo dee julli war koo sàng ba mu des say kanam ak say tenq moom na ba muy julli boppam mbaa baatam mbaa ay loxo mbaa ab dënnam mbaa ay cati tànkam dara di ca feeñ su boobaa julli ga dina baax waaye dañ koy wax ne ko na nga ko baamu ci waxtu yi mooy su waxtu yi jeexut ñu bëgg mu sa mu soloo sàngoo nañu war a sàngoo ko defee baamu nag julli ga na nga takkaale foofu nag ne saa yu ñu ne baamu ci waxtu rek xamal ne julli ga njëkk a julli baax na dañoo sopp rek baamu ga te it bu waxtu ba jàllee sopp gañ soppan baamu ga jeex na amatut chartu wujjoo bi haa sartu waram nga moom julli an naqa mooy set mina dami ci deret bi xassatin ci ak ñooy awil juhóofi wala ak fendi fanlam na nga xam lemu weesu woon mooy sart yi tax julli gaa wér sart yi mi bëgg a wax nag mooy yee tax jullee war lay tax jullee war mooy bu dee jigéen mu bañ a amee dereti mbërëg bañ a amee dereti wasin waaye bu amee dereti mbërëg mbaa dereti wasin julli waru ko araam na sax mu def ko te itam am na tegtal bu muy xàmmee ne deretam jeex na ba julli war na ko loolu mooy su gisee li ñuy wax ñooy su amee deret dem ba ci mujj ga mu gis ndox mu weex di génne ca sawukaay ba loolu moo tudd alxasatu tegtal la ci ne deretam jeex na mbaa boog li ñuy wax fendi fendi mooy mu jël lu mel ne wëttéen mbaa morso def ko ci biir sawukaay ba génne ko xool te taqul dara tegtal la ci ne deretam jeex na deret ja jeexee nag julli doo ko war waaye nag xasi amee deret moom julli waru ko araam na sax mu song di ko def fala xadaa teetug fay ay yaamahoo ci fani mbërëg ma fani deret ji la bëgg a wax jamono yam gisee deret moo xam wasin la moo xam dereti mbërëg la fan yooyee du fay julliyam ci amoon du fay du fay barub julliyee déedéet waaye koor gan dana ko fay moom waaw su ma duxul waqtin topp tab bi waxtu fa axul dinaa wax ne addi xaa jooxal julli ga bii ca moom xat man ci lu war bokk na ci sar ci tax julli war la waxtu wa jot waaye su fekkee waxtu wa jotut kon jullit la war ñu ne fi mu nekk ni julli nga suba tisbaar jotugut kon nag tisbaar waru la balaa julli war rek waxtu wa jot sunanuha ay sunna moom julli as suuratu mooy saar wa ba'dal waaqiyati ci gannaaw fatiha al waaqiya aji fekk lay firi bokk na ci turi fatiha maxa qiyaami ànd ak taxawaay ba awalan ci ràkk bu njëkk wattaaniya ak ci bopp ñaareel bokk na ci sunnay julli saar wa ngay jàng ci gannaaw fatiha ci ràkk bu njëkk ak ci ràkkab ñaareel ci mboolem julli farata yi ba tey jëmmi taxawaayu saar wa itam day sunna kon nga wàññi jàng saar wa muy sunna taxawaayu jàng saar wa itam muy sunna kon muy ñaar jëhërun ak biral wa sirrun ak yalu bi ma xal leen ci béréb laxumaa ñee leen ñoom ñaar biral mooy wax boo xam ne xaw naa xumb ba yaa ngi koy dégg ku sës ci yow di ko dégg yalu nag mooy soxlaa mi ñu ngi yëngatu waaye ci dëgg-dëgg déggoo la ngay wax am na ñu taamu balaa ñoo dee yëngatu nga boole ci di ko dégg yow ci sa bopp ci bu dee kon biral ci fañ la ko digale sunna la yalu ci fañ la ko digale sunna la fañu diglee biral nag mooy ñaar rakkay suba ak ñaar rakk njëkk ci timis ak ñaar rakk njëkk ci gee ak ñaar rakk ajuma fañu diglee yalu nag moom mooy léppi tisbaar ak léppi takkusaan ak rakk bu mujj ca timis ak ñaar ña mujj ca gee kon béréb bu ci nekk rek nga def fa la fa yell ci biral mbaa yelu sunna la takk biiru hoo ak kàbbaram ba illal la si ndare ba nga xam ne taqaddama jiitu woon na bokk na ci sunnay julli yi allahu akbar yi muy wax yépp ci julli gi ba mu des ba nga xam ne moom lay njëkk a wax ba mu njëkk a wax moom moo tudd kàbbaru xarmal farata la woon bu bokkut ak boobu nag mooy nekk sunna ci mboolem niñ baree julli gi yépp rek benn bu ci nekk sunna la kumu tashahudin ak jéppataaya jéppataaya moo xam ji jëkk moo xam ji ñaareel la mën naa am sax julli nga am ñetti taaya mbaa yeent waaye taay yépp daal sunna lañu julluusan akub jataay awalum bi aji jëkk maanaam daa bëgg wax ne taay bu jëkk bi ab jataayam sunna la waxtaan yi ak boobu ñaareel ba tey taaye ñaareel ji maanaam jataay bu ñaareel bi mooy bi nga nar a sëlmal rek la jublu ci boobu ñaareel moom itam sunna la waaye nag laama waxuñu la nga xam ne yaxsulu dana am lislaami ñeel sëlmal ba maanaam jataay bu njëkk bi mooy bépp taay boo xam ne naroo caa sëlmal rek lañ jublu ci jataay bu njëkk moom taay ji sunna la jataay bu sunna la bu ne jataayu ñaareel dañoo jublu jataay ba nga xam ne ca nga nar a sëlmalee moom nag ay mbir da caa tase jëmmi taay ji ci boppam moom sunna la ab jataayam sunna la waaye foofu daa am julli ci yonante bi julli ci yonante bi sunna la ab jataayam ba tey sunna la dafa am ñaan ñaan nga boo ko mënee ci arab ñu sib nga wax ko ci leneen lu bokkut arab waaye bu fekkee mënoo ko ci arab moom ñaan googu mën nga ko wax ci làmmiñ nga mën ñaan nga dañ koo sopp bu ko defee jataay bi itam ñu sopp ko mu am itam asalaamaaleykum sëlmal te xam nga sëlmal farata la kon na diir ba ngay waxe asalaamaaleykum nga toog ko ba tey farata lay doon loolu moo tax boobu jataay moom ay mbir mbir tase ca wa samihallahu liman xamidahu ak wax samihallahu liman hamida fi rafi ca siggi ga min rukkoohi bàyyi ko ci ab rukkoom aw radahoo rotal na ko maanaam dana ko def rek alfazzu kenn wal imaamu ak ilimaan leen wax ne samiha dégg na allahu yàlla liman ñeel ka nga xam ne hamidahoo sant na ko maanaam loolu boo siggee ci rukkoo nga wax ko te fekk ngay ilimaan nga xam ne yaay jiite wala mu yow dong nga xam ne yaay julli yow dong kon boo siggee ci rukkoo nga wax samihallahu liman hamida sunna la waaye bu dee maamoom nag moom du ko wax benn yoon daañu wax maamoom lan lay wax haada lii ukki da fedd leef na ko nee na lii mu la jot a wax ci ay sunna mooy sunna yi nga xam ne ñoo fedd li ko ñoo dëgër wal baax yi aji des ja kal man doo bi mu ngi mel ne lu ñu sopp mën nga ne wal baax yi aji des ja badaa feeñ na kal man doo bi mel ne lu ñu sopp fi ñu ko mu ci àtte di des ci sunna yi moom nee na moom man doo yooyu moom nga xam ne boo ko bàyyi itam diis ko sujootal yi nga woos moom mooy sunna yi nga xam ne sunna yi feddaliku nga xam ne bàyyi ko dana tax a sujoot sujootu jamooj wàññi la yi nga xam ne dañoo mel ni rek lu ñu sopp iqaamatul liqaam liqaam da ko boole ci yi ñu sopp maanaam sunna yi nga xam ne dañoo mel ni ñu sopp waaye moom nag am na ñu ko dëgëral lool am na ñu wax ne sax boo ko deful te te tey ko maanaam boo liqaamut te tey ko julli gi day yàqu waaye jooju wax moom dëgërut ci dëgg-dëgg boo ko bàyyee tey ko itam du tax julli nga yàqu waaye daal farlu ba def ko mu gën a wóor sujooduhu akuk sujootam xalal ya day ni ci yaari loxo ya wa tarafir rijlay ni ak catu ñaari tànk ña mis lu rukk ba tey ni kem ñaari bëti wam ya maanaam bokk na ci sunna yi booy sujoot say ñaari loxo nga teg ko fi tolloog say nopp say bëti wam nga sukk ko say cati ñaari tànk man da ci jublu cati baaraam yi baaraam yi samp moom itam kon booy sujoot nga def noonu xam ne bëti wam yi sukk na ñaari loxo yi teg nga ko fa delloog say nopp jati baaraam yi samp na waaye loolu sunna la moo di sujjóot
insaatu muqtadin ak xerawluk aj roy aj roy mooy maamoom xerawlu nag mooy celleeral bañ a wax dara bi jëxrin ci biralu ilimaan bokk na ci sunna yi bu dee ci yoonu maalik bu sa ilimaan dee biral moo xam yaa ngi koy dégg moo xam déggoo ko moo xam da ngaa sori moo moo la tey dégg mbaa da ngaa tëx waaye moom daal ci waxtu biral la toll lay sunna mooy nga nga ne pat bañ a wax dara dara sib nañu yow ngay jàng ci jamono yooyu ilimaan di biral tumma raddun topp delloo sëlmal xalal imaam yi ci ilimaan ba wala saari ak ci càmmooñ ba wa ahadun tamit moom kenn bi yi nekk na ca moom ba tey nga delloo sa ilimaan ab sëlmal wax ndànk asalaamaaleykum jëmale ca moom bu fekkee am na ku la féete woon ci càmmooñ te na ngeen tooge woon di julli te am na julli ga lu matub ràkka nga waña bi ko wax ko ndànk moom it asalaamaaleykum delloo sëlmal yooyu lu ci nekk sunna la way saa idu sukkoonin ak aji dolliku dal lil xudóori ngir teew ga dañoo waxoon ne foo toll ne fa teg ba say cër dal moom farata la gannaaw nag bu farata ja amee loo ca dolliwaat nag ci dal ak ci tekkaaral nag loolee sunna la sutratu xayri muqtadin ak satiras kudul aji roy xaafa kooku ragal na almuroora romb ga maanaam bu fekkee ngay julli yow dong mbaa ngay jiite ragal ne kat mën naa bala ngaa sëlmal am korom fa sa kanam kon sunna la nga wut satir satir mooy da ngay wut loo xam ne lu mu gàtt gàtt na guddee ne xasab lu mu sew sew na dijje ne aw yet wu dijji te itam bu mu nekk lu taq sobe bu mu nekk lu rafet lool mbaa mu ñaaw lool ba nga di ko xalaat ci boo dee julli bu nekk lu yëngu toog dal na ne tekk loolu na nga teg ko fi sa kanam mën nga koo samp mën nga koo tëral loolu moo tudd satir sunna la ci ki nga xam ne day julli moom dong mbaa muy jiite ragal ne balaa noppi am ku jaar fi kanamam ne moom mi nga xam ne moom am na ku koy jiite kookee koy jiite rek mooy doon sattiram du aajowoo diggante ba moom mu fay teg dara mbaa mu fay jaarale dara jëhru salaami ak biral sëlmal ba sëlmal bi nga xam ne moom nga yewikoo ci julli gi nga wax ko ci kaw sunna la ba ngay delloo sa ilimaan nag mbaa nga la féete woon càmmooñ nag nga wax ko ca suuf moom lañ sopp kalimu tashahud yi ak baati taaya ja jëmmi taaya ci boppam moom akub ca taaya weesu woon nañ ko sunna la nga defee ko baat yi nga xam ne nag moom la ñu nettali la wax ne am nañu ko limaale ci sunna yi waaye am nañu ko boole itam ci ngëneel yi baat taay yi nga xam ne moom ngay jàng nag moom ci yoonu Maalik dañu ko jële woon ci Omar ibn Xataab mu wax ko ci minbar ba ñuy dégg booba la Maalik taamu moom la ñuy def de sax am na yeneen xeeti nettali taay yu bokkut ak moom wa an yu salliya ak mu julli xalaa Muhammadin ci Muhammad bokk na ci sunna yi taay ju mujj ja nga julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam noo ko jullee rek mu baax am na ñuy taamu nag nga def ko asalaatu al ibrahimiyatu moom itam daa bari ay waxin waxin waaye nag noo jullee ci yonante bi rek baax na waaye na julli ci yonante bi moom ca taay ja nga xam ne ca nga nar a sëlmal rek lay am moog ñaan taay ji nga xam ne moom naroo caa sëlmal doo ci julli ci yonante bi doo ca ñaan sunna sunna leef na al azanu nodd li jamaaxatin ñel mbooloo atat moom dikkal na fardan julli farata di waqti yi ca waxtoom wa wa talabate mu sàkk moom mbooloo ma xayran kaneen daa wax ne noddu sunna su dëgër la ci bépp néegu yàlla du jàkka yi jege-jege rek sunna la bu waxtu jotee ñu yëgle fa ne julli jot na te loolu mooy noddu ba tey mbooloo mu daje ci béréb moo xam ci garab penc la moo xam feneen la te waxtu julli jot ñu jàpp ne bu ñu noddee faaw dana am ku wuy si noddu gi woote lay doon ñu jàpp ne bu ñu wootee dana am ku wuy si kon ñu noddu ñoom itam sunna la ci ñoom waaye bu dee mbooloo moo xam ne fay nekk xam ne ne bu ñu noddee itam kenn du ñëw nit ki mbooloo mu ñu tëj kaso rek xam ne kaso bu moom ñoom ñu fa nekk rek ñoo fay nekk kon ñoom bu ñu noddu te it julli gu teew kat la ñuy noddal waaye julli goo xam ne raw na dañ koy fay rek kenn du ko noddal lu bokkut ak farata it mel na julli korité mbaa tabaski nga xam julli sunna lañ ba tey kenn du leen noddal wa qasru man ak wàññi ka nga xam ne saafara na mën a tukki arbaha burudin lu toll ne ñeenti bariit mu wàññi nag zuhran tisbaar xisha ak gee xasran ak takusaan ilaa xiini yamoot ba waxtu wu mi dellu si mimma war a sukkanaa tàmbale ci gannaaw dëkkukaay ba in qadima ndéem ñibbisi na ilahi ba ca moom yutim ma lay matal nga dellu ne muqiimu arbaxati ay yaamin aji yéene sax ñeenti fankat yutim mu dana matal kon mën ngaa jàng baatu yutim ñaari yoon ndegam soob na la daa wax ne koo xam ne daa nar a tukki tukki boo xam ne mat na diirub ñeenti bariit ñeenti bariit nag mën nga koo jàppee ci benn tali bi 72 kilomètres am ñu koy tolloole ba ci 83 kilomètres jëm ca kaw waaye daal mën ngaa jàppandi 72 kilomètres ci benn tolloole bi la ngay tukki su fekkee mat na ko kon sunna la julli ya matoon ñeent nga wàññi ko di ko julli ñaar rek nga julli ko ñaar moo gën nga sawar ba julli ko ñeent kon julli matoon ñeent mooy tisbaar ak gee ak takkusaan waaye suba de su ko wàññi ñaar lay doon timis ñett la kenn du ko wàññi bu fekkee da ngay tukki bàyyi ko ci dëkk bu rëy rëy ngay dem ba weesu léppi dëkk bi nga xam ne benn kër nekkul sa ndeyjoor benn nekkul sa càmmooñ sinatoo benn kër bu ca bokk bu amee ay kër yu fa jege yoo xam ne foofu la ñuy roote si wala ñu fa la ñuy duggee si marché yu demee noonu nga dem ba weesu ko moom it door a tàmbalee wàññi fa nga xam ne nag fa nga tàmbalee woon wàññi boo ñibbisee ba ak si waat foofa daal tàmbalee matal léegi mu ni muqiimu arbaxati ayyaamin day wane ne bu fekkee da ngay tukki doon wàññi àgg ci béréb nag fas fa yéene sax ñeenti fan mbaa nga fay dox soxla soo xam ne wóor na ne balaa sotti moom mu mat ñeenti fan kon na ngay matal rek ba bàyyi koo foofa boo fa bàyyi koo ñu xool ba xam fa nga jëm nag moom ba xam matal leen sarti wàññim déet su ko matalee nga wàññi su ko matalewul doo wàññi bu fekkee nag foofa yéene woo faa sax ñeenti fan xamoo itam la nga fay dox kañ lay sotti kon na ngay wàññi rek lu mu yàgg-yàgg loo fa yàgg-yàgg da ngay wàññi rek moom mooy sa sunna man doomu xaal li ñu soppi julli te yaa mënoon mooy ndeyjooru wax salaami ànd ak sëlmal wa bokk na ci ngëneelu julli xam ne sàmm ko li tax surtout yaa bu gën a bari boo dee wax asalaamaaleykum boo ne asalaamaaley ba mu des kum kum ji nga xaw a du mooy tuuti ci sa wetu ndeyjoor kum ji nga xaw a du mooy tuuti ci sa wetu ndeyjoor ba ku nekkoon ci sa gannaaw seen sa pegg leex loolu ngëneel la te amiinu man ak waxut aaminu ka nga xam ne sallaa julli na xadaa jahril imaami ndare birilub imaan képp kuy julli bu waxee wala daliin ñu sopp mu wax amiin bu dee yow dong moom daañu ko sopp saa yu nekk moo xam na nga yel moo xam na ngay biral waaye na ci suuf lañ koy wax bu dee ci yoonu Maalik kenn ko yëkkati am ñu koy yëkkati nag loolu seen yoon la ba mu des nag boo dee jiite tey biral boole ci boo dee jiite tey biral moom doo wax amiin ngay bàyyi maamam ñu wax ko ndax xam na nga dégg kilifa gu mag tey borom xam-xam boole ci moom muy jiiti ba noppi ni ki waa màkka yi wax ko ci ko waaye loolu seen yoon la bu dee yoonu maal daal moom boo dee jiiti tey biral moom doo ko wax wa qawlu rabbana laka alhamdu ak wax rabbana yow sunu borom laka ñeel na la alhamdu cant ga dañ ciy boole waaw sax rabbana wa laka alhamdu wax loolu nga neen la xadaa moom da rek nga xam ne am ma jiiti na maanaam koy jiiti moom du wax benn yoon rabbana wa laka alhamdu boo dee jullee dong danga ko wax boo dee jugee dong gannaaw boo waxee samiha allahu liman hamida da nga dellu waxaat rabbana walak alhamdu xam yaar yëpp ngay wax boo dee jugee dong ba tey boo doonee maamam am ku la jiite bu ilimaan waxee samiha allahu liman hamida nga daal di wax rabbana walak alhamdu baa nga ne allahumma rabbana walak alhamdu waaye boo dee jiite nag moom doo ko wax benn yoon ngay wax rek sami allahu liman hamida soo dee jiite maamum nag mooy wax rabbana wa lakal hamdu ci yooyu jamono wal xunuutu xunuut it ba daa feeñ na fi sub fii ci suba xunuut ba tey ngëneel la dañ koo sopp nga def ko ci jullik suba jullik suba doo nga ko am bu dee ci yoon maalik te ci ràkkam ñaareel la ko amee te gannaaw boo jàngee faatiha ak saar la koy am te dañoo sopp itam nga yellu ko wax ko ci suuf ci bala ngaaru ko itam boole ci ridaul akuk làmbaay bokk na ci ñu sopp kiy julli moo xam day jiiti moo xam jiiti wut mu wut làmbaay ñoom la ci bu njëkk daa mel ni daaw ñu soloo nii nga xam ne moom lañ baaxoo soloo nga xam ne daal wut ak làmbaay goo xam ne nee nañu daa war a mat ci guddaay ñeenti xasab ak genn wàll am na sax ñu wax juróom benn yaatuwaay bi mat ñetti xasab su ko defee nag léegi ñu làmbaayoo ko laxaaroo ko bu ñu dee julli waaye teewul na sopp nañu bu dee luntam ni ñuy soloo sax jekk na waaye taamu nañ boo dee julli nga wut lu mel ne ab sarbet wala lu mel ne kaala gàll ko ci say mbagg te bañ koo muuroo ci sa bopp laxaar ko ci sa baat ni ko jigéen di defee kon jàppal ne loolu lu ñu sopp la bokk na ci ngënee li julli daa ñu sib nag kuy jiite ci jàkk bañ koo def wa tasbihu sujud ak sabbaalu sujud ba war rukkoo ak rukkoo maanaam booy sujjóot ak booy rukkoo li ngay wax sabaal boobu dañ koo sopp booy sujjóot subhaana rabbiyal a'la li muy sabaal ga booy rukkoo subhaana rabbiyal azimi wa bihamdi booy rukkoo amul ñaan booy sujjóot nag moom sopp nañ ko ñaan soo nee subhaana rabbiyal a'la dolli ci allahumma xfir li allahumma xfir li yàlla yàlla ma jéggal ci am ñaan la subhaana rabbiyal a'la ja ak sabaal la bu la neexee jàll fa ñaan ñaan gudd nag ñu toog ci sa ci sa bu dee yow dong ndax foofu fi la jaam bi gën a jege boromam ci bu dee sujjóot noonu ko defee kon mën nga fa ñaan bu baax waaye rek kon amul ñaan moom sabal rek la am saddlu yadin ak yoor loxo yoor loxo mooy bàyyi say loxo mu wàcc bu dee ci yoonu maali yi nu nekk boo dee julli julli farata dañuy sib nga nëpp say loxo maanaam nga jël say loxo boo xam ne waa jël bopp ndeyjoor jàpp ko ci bopp càmmoñ teg ko ci sa dënd mbaa ak foo ko mën di teg rek bu dee julli farata ñoom ñu sib ko ndax dañ koo xaw a niróo léegi wóoru da nga ci am noflaay boo ko defee bu dee naafile na moom dagan na ca nee nañu waaye waaye bëgguñu ko julli farata ñoom nag loolu mooy seen gis-gis donte gis nañ ci addis moom mel ne da caa dëgër waaye ñoom loolu mooy seen yoon takk biiruhu ak kabaram maxa shuróomi ànd ak tàmbali ga man nga ne takbiruhu ak kabaram ma shuruh ànd ak tàmbali ponk ba maanaam bépp farata booy tàmbalee def rek dañoo bëgg nga tàmbalee waxaale allahu akbar nga boole jëf ji ak wax gi ni ki boo tàmbalee sëgg di ko daal tàmbalee wax allahu akbar fa saasa te bàyyi ba ko ba noppi doon wax allahu akbar boo sëggee tàmbalee sujjóot ba ngay tàmbalee sëgg rek ngay tàmbalee wax allahu akbar xam ne jëf gi wax gi ñooy àndandoo loolu nga neel la ci julli wa baxda an yaqooma ak gannaaw ba mu jógee min wustaahu bàyyi ko ci taaye diggam mu des nag boo amee ñaari rakk ba jóg jëm ci rakkam ñetteel foofu de moom taw moom nga tàmbalee jóg daal tàmbalee wax fi saa su allahu akbar dañoo bëgg nga bàyyi ba jóg ba taxaw jonn